jamono daa doy waar tukkikat yaa ngi nii dañuy dem ci àll bi di dem mooy ndog yi ab si aboo yóddu kon Mbàkke kër ga nga njëkk a jënd Basiru Jaxate mee nga woo sa doom kër nga ngànn mu ñëw nga ne ko wàññal lu kër gay jar nga dem yóbbu ko keroog xaalis ba bari na ba banque ba ca Touba la jaar dugal ko ci compte ga ñëw ndakaaru jël xaalis ba door dem dem ko nga ni ko xaalis bii ngay yóbbu wane doole Sëriñ Baara laa ci jublu bëgguma dara bëgguma leen lu dul liggéeyal sëriñ Baara wane yoon yoon woowa nga xaar li ñu topp la soo dikkee Ndakaaru tey sëñ Abdourahman suñ doon dagg suñu cër yi dina ko jox duñ la mën a fay barke borom Touba laa wax yamoo rek sëñ Cheikh Mbacke mu jur kay ne Fatma borom naas nga nuru ko jàng la war a jàng toog waaye li nga am sëriñ Moussa Modou Moussa moom nga am jëm jiitu kii sëñ Modou Moussa muy sëñ Baara kon Mbacke Balla noo ngi ñaan sëriñ bi xool ñëpp. Mbàkke noo ngi lay ñaan nga xool ñëpp ajo ñëpp faju jotaay bi day ak toog sax du day ndax sa Moussa eh xool na ñëpp mbakke waaw kay di sëriñ Baara di sëñ Modou Moustapha nee na yow rek la ñu am te xam na ñi mat nga sëriñ Baara Mbàkke nee mi ngi lay ñaan fajug aajug ñi fi ñëw ñëpp di taalibe ak tawat ju fi waay indi woon mu faju ak jàngoro ju fi waay indi woon ak soxla bu fi waay indi woon waaye nee na mi ngi lay ñaan itam mboolem ku mbokkal sëriñ Cheikh nga toog ba mat sëriñ Cheikh fees ko dell doolu nga ma yam loo woona nee mi ngi lay ñaan ñii ñëpp doomi Serigne Cheikh Mbacke yëpp toog ba doon Serigne Cheikh Mbacke bu ñu gàttu fan bu ñu ñàkk bu ñu ñàkk bayre nee na loolu fasaale na ñi fi nekk ñëpp waaye tàmbale ko ñu mbokkal gaynde ma ndax nee na moom kat bu bëtam xonq nga ci yow la jëm kàddu googu la mu waxoon ñi mu maa yokk dara ci waxam ci sa digganteem ban julli ba noppi ngeen waat tuuti kaddug Serigne Cheikh am na ne lu mu ciy dolli tuuti sëriñ Abdourahmane Serigne Cheikh Sidi ne mi ngi lay sant bu baax sëriñ Cheikh nee mi ngi lay gërëm bu baax ne la mu la waxoon keroog la nga waxoon keroog ni jaay naa euh, la la waxoon keroog ni jaay naa njuréel gi jënde ko ak taalibe la ko waxoon keroog nee na loola xam na ni moo nekk ci yow ne loolu kon seere na ko sant na la bu baax sëriñ bi nee gërëm na la bu baax sëñ Abdourahmane nee mi ngi lay xamal ni nag sëriñ bi nee mi ngi lay xamal ni tey ëllëg am nga ngërëmam yow ne li ma lay xamal daal ko di ko baamuwaat mooy tey ëllëg am nga ngërëmam jël loolu la foofu la ko yemale